première victime si Baye Fall ay waay soxna si lan nga doon def ba Baye Fall def nii sa bopp bi nit da ngay dégg ndigal. bul jooy nag noppi nit da ngay dégg ndigal dangaa waroon a dégg ndigal kon kenn du la def nii. première victime si Baye Fall ay waay soxna si lan nga doon def ba Baye Fall def nii sa bopp bi nit da ngay dégg ndigal. bul jooy nag noppi nit da ngay dégg ndigal dangaa waroon a dégg ndigal kon kenn du la def nii.